jërë ngeen jëf si seetaan bi ngeen a seetaan QTV ak déglu bi ngeen a déglu Q Radio ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bi di jotaayu xibaar yi ñu fesal boppi xibaar yi soxna njiit réew mi Fatoumata Ba Barrow ak nga xam ne moo di meeya bu Banjul roxi Malick Lo daal dinañ nag ñaax li nga xam ne moo di nag way jur yi surtout way jur yu jigéen yi ngelawaay nañ fexe nag seen i ay doom nag daal ñu jotee si li nga xam ne moo di daal toqantal bi nga xam ne dafa tax seen i ay doom nag daal ñu mun a mucc si li nga xam ne moo di jàngoro jooju eh, ñu xame si rek daal polio dinañ ko yaatal si biir xibaar yi ab ndaje boo xam ne dañoo waxtaanee ay si rek wàllu alam geeg eh, jafe-jafe yi nga xam ne wécceeku jaww ji dina koy faral di indi ñu xamee ko si COP 29 ñi di ko amalee jamono ji si rek dëkk bi ñu xamee si Baku si rek réewum Azerbaïdjan kilifa nag yi nga xam ne daal dajee nañ fa nag daal seeni nag daal itte yëpp nag daal mooy nag daal fexe réew yi nag daal di nag daal jëfandikoo nag daal loo xam ne si rek wàllub li nga xam ne moo di courant si rek loo xam ne du nag daal yokk jafe-jafe yi nga xam ne wécceeku jaww ji dina koy faral di indi dinañ ko atal si biir xibaar yi banque bi ñu xamee si Bloom Bank ñoom nag amal nañ ab nag euh, ndaje goo xam ne dañ ci nag dajale ñi nga xam ne nag seen xam-xam màcc na si rek wàllub li nga xam ne moo di koom ak ñi nga xam ne dañoo yëg yëngu si rek wàllub li nga xam ne moo daal yaxantu nag ñu waxtaane mbirub nag yaxantu ak daal mbirub li nga xam ne moo di koom dinañ ko yaatal biir xibaar yi yi ak yeneen gannaaw bàkka bi ñu daal di yaatal alarba la fukki fan yi ak ñetta si weeru novembre atuma 2024 di atum ñaari june ñaar fukki ak ñeneent ñu dalal leen si seen jotaay bu mag bii di jotaayu xibaar yi Ibrahim Khalil Gueye moo leen di yaatal xibaar yi ñu yaatal xibaar yi soxna njiit réew mi Fatoumata Babar nu lay wuyoo moom ak ki nga xam ne moo di meyo wala buur Banjul Rohey Malick Lo ñoom ñaari kilifa yi nag daal dinañ nag ñaax sàkku nag si rek way jur yi surtout nag daal yaay yi mu di way jur yi jigéen ngelawaay nañ fexe nag seen i ay tuut tànk yi nga xam ne seen i ay at weesuwut juróomi at daal nañ fexe ñu nag daal di jotee si li nga xam ne moo di toqantal bi nga xam ne moo tax na daal seen i dëkk tu tànka yu nag wala seeni doom yooyu mun a daal di mucc si li nga xam ne moo di jàngoro jooju ñu xamee si polio di rek daal jàngoro yi nag lafeñ gannaaw bi nga xam ne daal tàmbali nañ nag daal di nag joxe toqantal pour daal xale yi nga xam ne rek seen ay at nag weesuwut li nga xam ne moo daal juróomi li nga xam ne moo di at moom ki nga xam ne moo di Rohey Malick Lowe ak Fatoumata Babaro ñoom nag daal li nag ñu ngi ko waasi rek daal li nga xam ne moo di ab nag tàmbali boo xam ne daal dañ nag tàmbali di daal di toqantal ay nag daal xale yi nga xam ne seeni ay at nag weesuwut li nga xam ne mu daal juróomi at ñu dee di leen toqantal toqantal boo xam ne dina leen nag daal muccal pour daal ñu bañ am jàngoro yu ñu xamee si polio di rek feebaru li nga xam ne moo di ak lafañ li nag ñu ngi ko nag daal di tàmbalee foofu si diwaanu li nga xam ne moo di daal Banjul si rek bérébu fajukaay bi ñu xamee si polyclinique fa lañ nag daal tàmbalee li nga xam ne moo di ak mbir mi ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na si rek wàllu wérgu yaram askan nga xam ne ñoom lañ ko dénk fii si biir li nga xam ne moo di réew mi ñoom nag daal nag si rek ndimbal boo xam ne jotee nañ ko si mbootaay àddina si ñu xamee si WHO di mbootaay bi nga xam ne ñooy saytu wérgu yaram askan bi si àddina si ak mbootaay bi ñu xamee si UNICEF di mbootaay bi nga xam ne mooy saytu li nga xam ne moo di nag tuut tànk yi wala xale yi nga xam ne ñoo nekk si rek daal àddina si ñoom nag daal ñoo nag daal di taxaw tem pour gis ne li nga xam ne moo di xale yi nag daal dinañ leen nag toqantal xale yi nga xam ne seeni ay at mot mm, weesuwut wala ëppul juróomi at daal faaw nag ñu jël toqantal goo xam ne dina leen fagar wala daal dina tax ñu mun a mucc si li nga xam ne moo di jàngoro jooju ñoo xam si li nga xam ne moo daal euh, polio ba tey daal li nga xam ne moo di nag daal xew-xew bi eh, ñu ngi ko doon amale si rek bérébu fajukaay bi ñu xamee si polyclinique si nag daal ab nag daal béréb boo xam ne daanaka ay nag yaay yu bëri nag daal indi nañ fa nag seen ay doom nag ñu nag toqantal leen si eh, li nga xam ne moo di daal ñu jëfandikoo kon nag li nga xam ne moo di eh, toqantal boo xam ne dina tax nag seen i doom yooyu mun a mucca si li nga xam ne moo di feebar wu ñu xamee si polio docteur Moustapha Bitey moom nag mooy chief medical director wala daal moo yilif béréb bu fajukaay bu mag boobu ñu xamee si Edward Francis Small Teaching Hospital sant na gërëm na bu baax a baax ñëpp ñoo xam ne jàppale nañ Ministry of Health di bunta bi nga xam ne ñoom lañ dénk wér gu yaram askan ñëpp ñoo xam ne daal jàppale nañ leen nag si rek wàllub nag seen i liggéey daal dina leen nag delloo njukkal moom Minister of Health nga xam ne moom lañ dénk wér gu yaram askan wi docteur Ahmadou Lamine Samate moom nag daal dina wax daal solo si nga xam daal mbir mi nag daal dina ko am muy sant gërëm bu baax a baax soxna njiit réew mi di Fatoumata Ba Barrow si rek daal eh, jàppandal bi nga xam ne daal mu ngi koy faral di ko jàppale li nga xam ne moo di daal bunte yi nga xam ne ñoo di bunti nag daal wér gu yaram daal ni mu leen di jàppale daal dafa nag daal di. Euh, jéggi li nga xam ne moo daal dayoo gannaaw bi nga xam ne daal yàgg yàgg na leen a jàppale laata sax daal mu doon nag daal di euh, nekk nag ab dara si biir li nga xam ne moo daal réew mi bu ñu sukkandiku si li nga xam ne moo daal ay nag daal kàddoom euh, moom soxna njiitu réew mi sax di Fatoumata Ba Baro moom sax foofu si polyclinique moom nag lañ cëralee mu nag daal njëkk a toqantal ab xale wala ab tuutànk si li nga xam ne moo di daal béréb boobu mu nag yëkkati fa kàddu moom soxna njiiti réew mi daal di nag euh, yëkkati ay kàddu jëmale ko si way juri surtout way juri jigéen yi nga ngelawaay nañ fexe nag seen i ay tuut tànka wala seeni doom yi nga xam ne seeni at euh, ëpput wala weesuwul juróomi at daal ngelawaay nañ leen yóbbu si béréb yi nga xam ne daal dinañ leen mën a daal di toqantal toqantal boo xam ne dina tax na daal ñu mun a mucc si li nga xam ne moo di jàngoro jooju ñu xamee si polio. meyo bu Banjul di rek buur Banjul Rohey Malick Lowe nga xam ne moom daanaka lu aju ci rek wàllum nag daal taxawu tout tànk rek lu ko itteel la moom mi nag daal dina euh, sàkku si li nga xam ne moo di way juri surtout way juri jigéen yi ngelawaay képp koo xam ne am nga tout tànk wala doom joo xam ne ay atam euh, nag ëpput wala weesuwul juróomi at ngelawaay yóbbu ko nag si rek béréb yi nga xam daal dina fa nag mun a jotee li nga xam ne moo di toqantal goo xam ne tax nag daal mu mun a mucca si li nga xam ne moo di jàngoro ji ñu xamee si li nga xam ne moo di polio ñoom ñi nga xam ne ñoo di ministry of health di nga xam ne ñoom lañ tënk wérgu yaram askan wi li nga xam ne moo di yëngu-yëngu bi nga xam ne moom lañ tak tàmbali euh, tàmbali nañ ko niki rek daal démba yemoo ak fukki fan ak ñaar si weeru li nga xam ne moo di daal novembre dina dem nag ba fukki fan ak juróom si weeru li nga xam ne moo daal novembre loolu nag daal daal yëngu-yëngu bu njëkk bi dinañ nag amal beneen yëngu-yëngu boo xam ne dinañ ko war tàmbali si weeru décembre fukki fan ak ñaar jàpp fukki fan ak li nga xam ne moo di juróom weer woowu tamit nag daal dinañ dugg si biir li nga xam ne moo daal réew mi fekk ji nag li nga xam ne moo di daal njabooti surtout nag daal ñi nga xam ne am nañ doom yoo xam ne seen i ay at weesuwul juróomi at daal ñu mën a rek daal di jot si li nga xam ne moo di toxantal yoo xam ne dina tax daal ñu mën a mucc si li nga xam ne moo di jàngoro jooju ñoo xam ne si polio ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo daal xibaar ab euh, ndaje wala ab penco moo xam ne ñoo waxtaane mbiru alam geek jafe yi nga xam ne wecceeku jaww ji dina koy faral di ko indi euh, bi yoon ñu di ko amale si dëkk bi ñu xamee si Baku si rek réewum li nga xam ne moo di Azerbaïdjan ndaje mi nag ñu daal di ko duppee euh, COP 29 kilifa yi nga xam ne daal daje nañ fa nag daal li leen itteel mooy ne daal fexe li nga xam ne moo di réew yi nag daal ñuy fexe nag daal jëfandikoo si rek wàllu courant loo xam ne euh, du nag daal di indi jafe-jafe si rek alam geeg euh, li nga xam ne moo di suñu wurwaay te tamit dina tax na daal ñu mun a mucc si jafe yi nga xam ne wecceeku jaww ji dina koy nag daal faral di indi nga xam ne daal saa yu wecceeku jaww ji amee dinay faral di indi gàllankoor nag daal askan wi ba tey daal si rek li nga xam ne moo di seen ab ndaje boo xam ne ñi ngi koy amalee jamono ji si rek dëkk bu xamee si Baku réewum Azerbaïdjan ñoom ñi nga xam ne ñoo di kilifa daal wax nag daal ñu nag daal di lal ay nag daal pexe mun na daal di jëfandikoo euh, nag daal xeetu courant goo xam ne daal du tax na daal ñu mun a nag daal di loru si li nga xam ne moo di jafe yi nga xam ne wecceeku jaww ji da koy faral di indi tamit dina tamit nag daal di yaxanal li nga xam ne moo di koom euh, bu ñu nag sukkandekoo daal seen ay nag daal ndaje yoo xam ne jamono ji ñu ngi koy amal si li nga xam ne moo di ndaje moom ñu xamee si COP 29 ñu di ko amal si rek dëkk bi ñu xamee si Baku réewum li nga xam ne moo di daal Azerbaïdjan réew li nga xam ne moo di Gambie nag daal bu yàggul daal dinañ nag daal daal di dalloo eh, loolu nga xam ne moom lañ xamee si solar energy facility maanaam ab nag daal néegu eh, courant goo xam daal eh, nag daal daanaka ab néegu courant yi solo la nga xam ne si weeru avril atum 23 lañ ko nag daal di euh, dalloo woon foofu ñu xamee si rek jàmbur nga xam si ab néegu courant la goo xam ne daanaka li moo nag daal di denc si courant tollu na si daal juróom-ñetti mégawatt nga daal daanaka ab nag daal courant la goo xam ne daal mun nañ koo nag daal euh, jëfandikoo nag nga xam ne euh, naaj bi sax daal mooy nag daal togg li nga xam ne moo daal courant googu minister of environment jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk alam geek gi si biir réewu Gambie ñu xamee ko si rox yi John Manjang bokk si rek doomi réewu Gambie ñi nga xam ne teewee nañ wala ñu ngi ndaje moom xam ne ñu ngi koy amal si rek xam ne moo di Azerbaïdjan bokk na si rek daal ab nag ndaje boo xam ne nag daal fegoo na ko ak li nga xam ne moo di ay nag daal kilifa yoo xam ne ñu ngi nag jógee ko fi ñu xamee si World Trade Organization ak tamit Global Renewable Energy Alliance si rek daal ndaje moo xam ne daal teewee na ko moom ministre Rohey John Manjang daal dinañ fa nag daal waxtaane lu bëri bokk na si nag tiral ay pexe fexe nag réew yi daal jëfandikoo nag daal courant xam ne du tax nag daal euh, nag ñu mun a daal di am nag lorange si rek jafe-jafe nga xam ne wecceeku jaww ji dina koy faral di indi réewum Azerbaïdjan nga xam ne ji wala atum ren nag ñoom ñooy dalal nag daal xew-xew bu mag boobu ñu xamee si COP 29 ñuy waxtaanee jafe-jafe nga xam ne wecceeku jaww dina koy faral indi ab réew la joo xam daal ñoom nag dañ jàpp ne daal daanaka nag daal li dinañ si nag jëlee ab njëriñ xanaa bi nga xam ne daal dina tax daal ñoom ne a defaraat seen i ab toogaay si rek daal mooy tëndeku lépp loo xam ne daal wecceeku jaww ji nag dina koy faral di si rek wàllub li nga xam ne moo di daal gàllankoor li nga xam ne moo di daal askan ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo daal xibaar banque bi nga xam ne moom lañ xamee si Bloom Bloom Bank Africa keroog li nga xam ne moo di lundi daal amal nañ ab ndaje boo xam ne ñu ngi ko duppee breakfast meeting nga xam ne nag ab ndaje la koo xam ne dañ doon nag waxtaanee mbirub yaxantu maanaam mbirub jënd ak jaay doon nag waxtaanee tamit mbirub li nga xam ne moo di koom dajale nag dajale si nag ñoo xam ne seen xam-xam màcc na si rek wàllub nag yaxantu ak wàllum li nga xam ne moo di daal euh, koom si li nga xam ne moo da ndaje moom nga xam ne ñoom Bloom Bank nag daal amal nañ ko dajale nañ fa nag daal dajale nañ fa nag daal ay nag kilifa yoo xam ne ràññee nañ leen si wàllub li nga xam ne moo daal yaxantu ak tamit ñi nga xam ne daal ay nag boroomi kàddu lañ si rek daal euh, li nga xam ne moo di daal réew mi ak tamit ñeneen ñoo xam ne ay kilifa la ñoo xam ne ñu ngi nag jógee ko si ay këru li nga xam ne moo dëkk liggéeyukaay seen nag moom dañ doon waxtaanee mbirub yaxantu ak daal mbirub li nga xam ne moo di daal euh, nag daal koom naka la ñoo fexee tamit li nga xam ne moo di koom surtout koom yi li nga xam ne moo di réewu Gàmbi ñu fexe nag ngeen koo nag daal di ñoŋal docteur Sid Ololuwa nga xam ne moom mooy board chairman bu Bloombank Gambia Limited wax na daal solo si nga xam ne daal penco mi wala daal ndaje mi daal dina ko nag daal am mu nag daal di sax kañ réewum li nga xam ne moo di daal Gambie daal ni nga xam nag noonu lay góorgóorloo si rek wàllu bi nga xam ne moo daal koom te nag wax na li nag lu ñu bugal la réew yi nga xam ne ñoo nekk si suuf li nga xam ne moo daal Afrique mu nag wax ne li nga xam ne moo di banque boobu ñu xam si Bloom Bank dinañ gën a jël seen nag wala daal dinañ gën a jël li nga xam ne moo di ay jéego taxawu réew li nga xam ne moo daal Gambie gën a ñoŋal li nga xam ne moo di daal koomam li nga xam ne moo di daal ndaje moomu daal dajale na fa nag ay nag nit wala daal ay nag kilifa nag daal daje nañ fa ñu nag daal di weccoowante li nga xam ne moo daal xalaat si rek wàllub koom ak wàllub li nga xam ne moo daal jënd ak jaay ki nga xam ne moo fa teewal gouverneur bu Central Bank of the Gambia ki ko fa teewal docteur Lamine Mane nga xam ne moom lañ dénk nombal tànka bi ñu xamee si senior adviser uh, foofu si banque boobu ñu xamee si Central Bank of the Gambia moom nag delloo na jukkal sargal banque bi ñu xamee si Bloom Bank si nag ndaje gu am solo gi nga xam ne moom nag lañ nag daal di amal di nag waxtaanee mbirub yaxantu ak daal mbirub li nga xam ne moo di koom ne daal lii lu am am solo lu ñu war di nag baril la uh, bu ñu sukkandekoo si ay kàddoom Alain uh, Thierry Bongo. nga xam ne moom mooy CEO bu Afrique Sim ak Afrique Sim Bank anglophone West Africa moom it nag euh, delloo na njukkal Bloom Bank Africa si seen nag ndaje mu am solo mi nga xam ne moom nag lañ nag daal di amal nag daanaka façon yi nag ndaje yu ñu war di amal la di nag waxtaanee koom ak daal mbirub li nga xam ne moo daal yaxantu li nga xam ne moo daal ndaje mi nag bokk na si nag ay nag ndaje yoo xam ne daal daal amal nañ ko fa tamit nag waxtaanee mbirub nag yaxantu ak daal mbirub li nga xam ne moo di daal euh, koom ñoom ñi nga xam ne ñëw di daal euh, banque bi daal xam nañu daal lii nag ko def nag daal pour daal gën daal di euh, donc daal fay daal mbirum li nga xam ne moo di daal koom ak mbirum li nga xam ne moo daal euh, yaxantu ki nga xam ne moo di managing director bu Bloomberg Alfred Amo moom nag daal dina wane rek lii nag daal ab nag ndaje la boo xam ne dañ fay waxtaanee njëm kanam ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku si rek wàllub yaxantu ak wàllub li nga xam ne mu daal nag daal koom bu ñu sukkandekoo si rek daal ay kàddoom ñu wéyandi si beneen li nga xam ne moo daal xibaar banqaas bi ñu xamee si di National Population Commission Secretariat nekk si rek ron office of the uh, vice president daal di nañ nag lonc wala nag dalloo nañ ap comité wala kuréel gi nga xam ne moom lañ duppee legal advisory committee nga xam ne dañ ko nag taxawal pour daal mu jàppale projet bi nga xam ne moom lañ xamee si rek Sweet Plus legal project nga xam ne keroog talaata daal lañ nag daal di dalloo seen nag daal uh, comité uh, googu noonu li nag daal ab nag daal projet la boo xam daal dañ kon nag taxawal pour rek daal mu mun a jàppale li nga xam ne mu dal nguur gi pour rek daal ñu gën a mun a taxaw li nga xam ne moo di euh, soxna yeeg li nga xam ne moo di xale yu jigéen yi nga xam ne dinañ leen dee faral di nag daal di méttital wala sax di leen nag daal di mbugal réew li nga xam ne moo di daal Gambie bokk na si réew yi nga xam ne daal ñu ngi wëyandi di nag daal di xeex euh, loolu ñu ne si child marriage maanaam teel a xale yu jigéen ñu ñu sëy mbir la moo xam ne réew Gambie bokk na si réew yi nga xam ne ñu ngi xeex loolu loolu ñu xamee si gender based violence maanaam fitna ji nga xam ne dañ koy faral di ko nemmeeku surtout nag si rek aji way dencante ak sax ñi nga xam ne nag daal ñoo di ay jigéen ak li nga xam ne moo di euh, ay soxna bette na loolu nag daal wara li nga xam ne moo di nguur geeg euh, seen ay àndandoor taxawal nag euh, ab euh, projet boo xam ne moom lañ duppee Sub Saharan Africa Women's Demographic Dividend Plus Project mu di rek daal Suède nga xam ne li ko tax a jóg mooy nag dooleel taxaw li nga xam ne moo di soxna yeeg li nga xam ne moo di xale yu jigéen ñi si jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy faral di jànkuwanteel. benn fanu ndaj ndaje bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal doon nag euh, dalloo nag li nga xam ne moo di comité bi nag daal dañ ko nag def rek pour daal di tamit wane waale ñi nga xam ne ñoom nag ñoo bokk si rek daal euh, euh, comité boobu nga xam ne moom nag lañ nag daal di xamee si di National Population Commission Advisory Committee yi nga xam ne ki nga xam ne moo di Mariama Fane mooy director of population affairs si national population euh, commission secretariat mu nag daal di wax ne euh, daanaka kuréel gi nga xam ne moom nag lañ nag daal di taxawal nga xam ne ñoo saytu mbiru yoon lu amam solo la. li nga xam ne moo di daal kuréel googu ñu xamee wala banqaas boobu ñu xamee si National Population Commission Secretariat ab la boo xam ne ñu ngi ko sosoon si atum 1997 li ko tax jóg nag mooy nag pour daal taxaw li nga xam ne moo di askan mi nga xam ne daanaka dañ leen dee faral di leen nag daal di métital surtout soxna yeeg li nga xam ne moo di xale yu jigéen yi bi projet bi nga xam ne moom lañ si toftal pour rek mu daal jàppale banqaas bi mu di Suède am nag daal euh, projet la boo xam ne euh, bu ama am solo la waral nag daal ñu nag daal di si toftal beneen banqaas boo xam ne dañoo nag daal di euh, jublu si rek wàllub li nga xam ne moo di yoon ak yoonal gën a taxaw soxna yeeg xale yu jigéen yi nga xam ne dinañ leen dee faral di leen niwal doole. Hussein Tomasi moom nag lañ dénkoon nobal tànk bi ñu xamee si Solicitor General Ministry of Justice moom it nag daal dina woon mbirub yoon ak yoonal lu am amam solo la si rek bépp mbir moo xam ne ay doomi aadama nag daal ñu ngi siy nag daal di yëngu euh, buñ si buñ sukkandekoo si rek li nga xam ne euh, moo di daal ay nag daal euh, kàddoom ki ñu xamee si Néné MC Thiam nga xam ne moom xam-xamam màcc na lool si rek wàllub yoon ak li nga xam ne moo daal yonal ki ñu xamee si imaam Ousmane Dia nga xam ne moom kilifa diine la nga xam ne sax ñoom bokk nañ ci comité wala kuréel gi nga xam ne moom lañ xamee si legal advisory committee bi eh, ñoom nag wax nañ nag daal eh, solo eh, si nga xam ne ak li nga xam ne moo di mbir mi nag daal am na ko surtout daal fexe boole si ñi nga xam ne seen xam-xam màcc si wàllu yoon ak tamit ñi nga xam ne seen xam-xam na si rek wàllu li nga xam ne moo di daal diine si xibaar gu mujj gi banqaas bi ñu xamee si Office of the National Security lëkkaloo ak mbootaay Afrique bi ñu xamee si African Union daal dinañ nag daal euh, dalo ab nag ndak ndaje goo xam ne keroog loolu lañ ko nag daal di dalloo doon nag daal euh, jëmal di saytuwaat nag bu baax a baax li nga xam ne moo di daal tegtal yi nga xam ne soqeekoo na si rek daal liggéey gi nga xam ne ñu ngi ko doon amal pour daal di jubantiwaat nag mbirub li nga xam ne moo di kaaraange fii si biir li nga xam ne moo di réew mi ñu xamee si sécurité secteur réforme bett si seen nag daal euh, ndaje moom moomu nga xam ne dañ doon saytuwaat nag daal liggéey gi nga xam ne jot nañ ko amal si rek wàllub jubantiwaat nag mbirub nag daal euh, doxalinu kaaraange gi nga xam ne daal mbir la moo xam ne sumboon nañ ko si bi nga xam ne nguur gu bees gi ñëw na wala nguuri président Adama Barrow ñëw nañ si atum 2017 nag lañ nag daal di sumboon pour daal jubantiwaat mbirub nag doxalinu li nga xam ne moo di kaaraange ñu xamee ko si sécurité sector reform bett na si rek daal saytu euh, saytuwaat nag daal doxalin gi fan lañ toll si liggéey gi ki ñu xamee si Miss euh, Jocelyn Nahimana nga xam ne moom mooy head of the security sector reform division foofu si African Union moom nag wax daal solo si nga xam ne euh, saytuwaat nag daal liggéey gi fan la toll si rek wàllub jubanti mbirub rek doxalinu kaaraange si biir réew mi euh, nag daal fan la liggéey gi toll nag loolu lu am am solo la gannaaw bi nga xam ne daanaka fépp foo xam ne kaaraange am na fa nag daal. léppay nag daal jaar yoon nag daal bu ñu sukkandekoo si li nga xam ne moo di daal ay kàddoom Omar bi Bojang moom mooy deputy national security adviser moom nag wax na ne euh, daanaka jubanti mbirub nag doxalinu karange lu ama am solo la bi nga xam ne dina tax nag daal ñu mën a gën a sàmm ak ak yelleefu li nga xam ne moo di daal askan wi askan wi tamit aar seen nag moomeel ak tamit li nga xam ne moo daal euh, seeni bakkan Ibrahim Cerno Jaañ moom euh, lead consultant la ab euh, kat la daal dina rafetlu nag daal euh, benn fanu saytuwaat bi nga xam ne moom lañ doon saytu liggéey ki nga xam ne tàmbali nañ ko si rek wàllub jubbanti mbiru li nga xam ne moo daal kaaraange fii si biir réew mi loolu ñu xamee si sécurité secteur réforme jubbantiwaat mbirub kaaraange fi si biir réew mi ab nag mbir la moo xam ne nguuri président Adama Barrow bi ñu ñëwee si atum 2017 nag daal lañ kon nag daal li euh, tàmbali pour daal jubbantiwaat lépp loo xam ne dafa nag aju si rek wàllu doxalinu li nga xam ne moo daal kaaraange fii si biir li nga xam ne moo daal réew mi